bokki juliti bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ñaanal cheikh mahamadul muntaxa mbàkke xalif général kullu murit sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di ko ñaanal cheikh ahmadul muxtaar mbàkke mi xalifab cheikh mahamadul moustapha ak mboolem njabootuk sëriñ tuuba xaadim rasul bokki xam ngeen ni ki alxamis ji la ñu weesu yemoon ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ci atum 2022 waaye itam yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram mbokk yi muy bés bu am solo lool ci taarixul islaam rawatina yoonu murid ndax ku ne xam na ni bés bilee ci lañ doon fàttali ko doon ci màggal bis ba jàmbaar lislaam ji di xaadim rasul delloo ci sunu borom te cheikh mahamadul moustapha mbàkke jële ko njaarim indi ko ci dëkk bu tedd bile di tuubaa lii mi nga xew woon ci atu 1927 foofee ca njaarim bés boobu la nga xam ne lislaam dootu ko fàtte taarix dootu ko fàtte waral saa yu dellusee mboolem jullit yépp àndandoo di ci fàttaliku ak di ci ñaanal jëmm ji nga xam ne moo di sëriñ tuubaa xaadim rasul matul ngir kat ci la ab liggéeyam mate mu wuy ji sunu borom mbokk yi bés bi la nag dundal nañ ko ci dëkk bu tedd bi la di Touba niki alxames dëppoog fukki fan ak juróom-ñeent jàpp guddi ñaar fukki fan ci weeru muharram yamoog itam le 18 août ci atum 2022 dundal ko ci njàngoom alxuraanul karim ak njàngoom xasida ci mbooleem kër njabooti Serigne Touba xaadim rasul yi waaye rawatina fii ci Daaru Xuddoos ci ëttub Cheikh Mahamadul Moustapha looloo waral fii ci kër Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Alioune di ko bis bi ñor at ci am taxawaay bu am solo ànd ko ak mboolem taalibe yi nga xam ni mooy seen jëwriñ ci ëttu Serigne Touba Xaadim rasuul waral bi ñu xëyee ñu ubbeeku ko njàngum alxuraanul karim ak durus xasida ci teewaayu nag ay taalibe yu takk lool bàyyi ko fu nekk ci biir réew mi kazalika bitim réew fii ci kër sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Alioune ci Touba Daarul Xuddoos ci teewaayu nag ay délégation yu fasantikoo ak ay kilifa diine kilifa aada yu fasantikoo bàyyi ko fu nekk ci réew mi ñëw ngir ànd ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Alioune ci bis bu am solo bi nga xam ni bësub sëriñ Touba la ci teewaay yooyu ñu mën ci tudd teewaayu sëriñ Basiru Mbacke moom sëriñ Abdul Xaadir Mbacke mi nga xam ne moo yore kàdduk yoonu murit ndaka noonu itam ci teewaayu sëriñ Ahmadou Badiou Mbacke ibnu cheikh mahamadul fadal mbàkke mi jiite kuréel gi daraw du rayaaxin ndaka noonu itam ci teewaayu sëriñ cheikh coro mbàkke mi yore kàdduk njabootug cheikh mahamadul amin baara mbakke ndaka noonu itam ci teewaayu sëriñ cheikh baara laxan mbàkke di ku ñëpp xam ci yoonu murit ci teewaayu itam sëriñ cheikh mbàkke baara doli ak délégation bi mu àndaloon waaye itam ci teewaayu maître Madické Niang ak délégation bi mu àndaloon ci teewaayu itam sëriñ abo mbàkke ibnu sëriñ fàllu mbàkke asta jéey ak délégation bi mu àndaloon bàyyi Daaru Muxti kër maam Cerno Birahim Faty Mbàkke ci teewaay wi itam sëriñ Moustapha Diatara mii nga xam ni moo jiite bërëb bii di daaray kaamil waaye itam ci teewaayu sëriñ Moustapha Diop Ndar di jàngalekat di itam yarkat ba tey ci délégation yooyu nga xam ni teewoon nañu fii ci bës bi ngir ànd ko ak sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Aliou nemmeeku nañu ci itam délégation bi bàyyi ko ci njiitu réew mi président Macky Sall mu yebaloon fi ministre Dame Diop ak ministre Soxna ndey Ndeye Saly Diop Dieng nemmeeku nañu fi itam teewaayu délégation bi bàyyi ko ci Ousmane Sonko te honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké jiite woon ko waaye itam nemmeeku nañ fi teewaayu monsieur le maire di Abdoul Ahad Ka di maire bu Touba. ndaka noonu itam ràññee nañu teewaayu délégation bi bàyyi ko ci Makhtar Sylla di PDG bu Label TV nekk itam ancien directeur général kër gii di RTS ci njiitul madame Sylla soxna Aïda Fall ak soxna Abi Sylla la ndaka noonu itam ci teewaayu bogaan gi dan yi di directeur général bu dee média ñi ñëpp mbokk yi teew nañu ci bés bi saafonte ak sëriñ cheikh aliou mbàkke bokk ak moom bés bi waaye nag bi ñu demee ba fukki waxtu ak ñaar ci la sëñ bi génn fii ci baas bi ci teewaayu mbooleem taalibe yi xarit yi soppe yi wëlëre yi ak am di jàmm yi lépp nag jël bés bi delloo ko ci borom di sëriñ touba xaadim rasul waral bi ñu teewee ci tànt bi amal nañu fi ay waxtaan yu am solo lool bokk na ci sëriñ busra sàmbu di borom xam-xam bu ñëpp xam yemalewul ñaari dëkki sa dëkki dëkki dëkki sëñ Modou Moussa ak yenn rawatina ci di gii rawatina Daaru Naim gii ak taalibey sëñ Aliou ak taalibey sëriñ Touba yi wut mbooloo dara te newu defar ña la yàlla jëkk booleel. ak kii di sëriñ Gana Messere Maxtaar. kon noo ngi sant sëriñ Cheikh Aliou bu baa di ko ñaanal yàlla gën ko yàggal te wéral ko. moom itam di borom xam-xam bu ñëpp xam. feggoon ci itam ak sëriñ imaam Niang moom sëriñ Mouhamadou Mamoun Niang ak al oustaz Mouhamadou Habib Gaye ginnaaw waxtaan yi la bàyyi ko ci borom xam-xam yi ngir dundal bés bi kàddu gu mujj gi tëj jataay bi mi ngi bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Alioune Mbacke. dafa jot nag ñu dellu siwaat càmbaraat xoolaat ba xam lii sëriñ bi tëraloon ndax ni nu koy tuddoo noo ngi koy jëfee. wala jëfewuñu ginnaaw bi mu waxtaanee ak mboole mi ba noppi digal leen soññ leen ci la ñu woyal bés bi yendoo ko màggal fanaane ko ba bët set lii nga xam ne moom lañ leen jëlale woon fii ci kër Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Alioune Mbacke ci alxames jile fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ci atum 2022 yam ak bëccëgu fukki fan ak juróom-ñeent jàpp guddig ñaar fukki fan ci weeru muharram di màggalug Serigne Touba gi nga xam ne ñu ngi ko doon dundalee fii ci Touba Daarul Xuddoos